waaye noonu laay ñaanalee it Serigne Bachir moom Cheikh Mouhamad Al Fadal suñu borom yàggal ko fi lool tamay ko ak wér waaye noonu laay ñaanalee it si Abdourahmane Mbacke ak Serigne Alhaji Mbacke moom Serigne Moustapha Absa borom yàggal leen fi lool tamay leen ak wér. waaye noonu laay jaajëfalee ñeneen ñi ngeen xam ne ñoo ngi seetaan Rafaaxa TV di leen siifur di leen bàyyi xel saa su waaye am ma baax gannaaw loolu yéen ngeen xam ne tamit yéen a ngi seetaan Rafaaxa TV di leen bàyyi xel Baye Basirou Lexlaas moo fasoo ànd ak waa Rafaaxa TV lu commencé vendredi ba lundi ci jaar-jaari mag ñi ci diggante bu yaatoo yaatoo yaatu su ñuy wax lu ci ëpp nag ñu ngi koy jëlee ci sëriñ Alhaaji Mbàkke ndax euh, waxtaani sëriñ dafa mat a sàmmoonteel ndax wax sëriñ Tuubaa dafa waxoon lu mel noonu Cheikh Ibra ko ku yokk samay wax baa nga wàññi ko xuru tàng wa te mooy sawara ñetti nuur bu ca dëggulit ak seeni nawet na ngeen ko ca am sëriñ Tuubaa moom musta bañu koy nettali dara waaye wax tamit du caa génne dañoo war di wax ne ngir ne diw mii kat daa mën a wax wala diw daa xam li muy wax wala diw daa am xam-xam déedéet li am solo daal mooy li ñuy wax ñi koy wax di ko dund ñi koy dégg di ko jëfe loolu képp ko taxoon di wax ndaxte waxtaani Serigne Touba moom fa nekk li gënal yàlla gënal yónnent bi gënal Serigne bi ndax sëriñ bi diirub li muy nekk ci géej gi ba ñëw laajoon na maam Cheikh ne ko diirub li ma ci xéewal gi bi ma ñëwee ba ba ñëw loo daan def diirub li may nekk ci xéewal gi loo daan def mu ne ko di wër fa ñuy waxtaanee si jëmm ji. 10 heures jàpp 11 heures ñoo ngi koy amal fii nii Rafah TV Baye Bassirou Likhlass ngeen koy àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.